laaj tey tax na ñu ne bu ay waaw loolu. waaw loolu moom. man laa man man laa ñëw man laa ñëw waaye man laa koy jëlee man laa koy jëlee yàlla. waaw du loolu. loolu mag mag bi mënut a topp ci góor yi. waaw waaw waaye waaye waaw kay dama xaw a yërëmaale. alhamdulilah sama suñu góor waaw. waaw. waaye waaye waaye nag bu fàttali sama sama maam jooju nag xam dara. ay ay ay ay ay waxam. xam nga ay waxam. alhamdulilah. xam nga ay ay ay ay ay waxam. xam nga ndaw ndaw ndaw kat ko. ndaw ndaw kat loolu réew mi moo koy.

di leen faaw rek seen maam leen di dimbali.